بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال شيء عليم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل waaye gannaaw haadi di setu sëriñ haadi Touré boobu moom gisuma ko ko ci dàq jàngal Alxuraan ah waaye sama njóobeen bi nag ci la bokk imaam Alioune Diop tabaarakallah kon moo tax ñu may ma yenn intervenir intervention yi nit ñi di def su fekkee ne dama juum ci li may wax nit mën na intervenir ku mel ni imaam gay wala imaam yi fi nekk rek imaam Yuusu wala ay imma yi fi ne wala ustaaz yi fi ne ustaaz Sidi Ahmed moo tax gis nga léegi eh, dama def barki démb barkaati démb lu gëj a lu ma gëj def sax damay yër ba quatre heures du matin ma ne yër baax na kat dama ko gëj def nag di yër di yër di yër ba quatre heures du matin affaire bu neex ma ne lii tax ñiy jàng di dee waaw yàlla xam na ko kon tafsir moo tax Seydul xaaj Malik radiyallahu anhu Cheikhul Xaaji Aziz nee na bu daan tafsir juróom-ñaari mag danañ ko wër ñoo xam ne ñëpp xam nañ li muy wax te ku ci nekk yaa ngeeg tafsir bu bokkul ak bi mu yor moom kii ru Qurtubi kii Ruuxul Bayaan kii Xaasiyatul Saawi kii kii kii ba juróom-ñaari tafasir nee na néew na aaye bu muy romb te newut sëñ Aline Gueye lu sa taf siir wax waaw sëñ Seybatu Fall lu sa siir wax noonu lay toppee mag ñi ba juróom-ñaari mag ñi daj mu doon a continuer pour wane ne xeebul kenn te xam-xamu ñëpp doy na ko xamoo nit ñi boo leen doy loowut duñ la doy nit ñi boo leen doy loowut duñ la doy te doo leen doy danga leen di doyloo nawloo leen ñu door laa doy nga doy leen kamaatu diinu tu daanu li nga leble rek lañ lay fay foo dégg dañ maa war dangaa yàgg a wor ñu fay la sa bor rek waaw waxuma nag ni ku ñu wor ku rek da nga yàgg da ngay wor déedéet wor sax dafa bari façon waaye kon ñu tàmbali saar yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ni su ma sañoon ñetti saar yi ñu jàngal ko jigéen ñi mooy soratu nisaa yi soratu nuur ak soratu mujaadala yonent bi nee na sallallahu su ma sañoon ñetti saar yi ñu jàngal ko jigéen ñi ndax atte yi ci nekk ak xam-xam bi ci nekk ak dundu sharia bi ci nekk ak ni la yàlla di faram àddina bi nga xam ko dafa nekk ci suratu nisaa yi bari na atte yu wàcc ci defar diggante ci suratu nisaa yi la nekk bari na atte yoo xam ne tey islaam a ngi koy atte woo ci suratu nisaa yi la nekk <coughs> mooy tax saaru saaru bari doole la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne su ma sañoon nag saar wii ñu di ko jàngal jigéen ñi bañ xam ko mooy suratul nuur suratul nisaa yi ak suratul mujaadala suratul mujaadala la tax moom it benn waay bu tëxët la rek du ma ne benn waay sax ndeysaan ndax saxaaba la te saxaaba yi kenn waru leen tuutal kenn waru leen sàllalu benn saxaaba la woon boo xam ne dafa amoon soxnaam soxna si ku bëgguj naafi la la nag gannaaw gi ci la yónent bi rëdd ne jigéen balaa naafi la na tàggu borom këram balaay woor wooru gàtt nga maanaam wooru naafi la na tàggu borom këram su ko defut borom këram sañ na koo dagguloo naafilam sañ na koo dagguloo kooram googu nga xam ne du farata moo tax jëkkër it am na doole de jëkkër am na doole de soo waree woor suba da ko naan papa wala bébé wala nijaay wala àllaaji yaa xam nooy tojee sa bopp janax ba mu nangul la wala trésor yaa xam hmm? akañ ah, yaa xam loo koy wax bu la nee ha jekk tànk wala bébé loo wax nga ne ko ah, suba dama bëggoon a woor kat moo tax ma di la tàgg mu ne la ah, yow xam nga ne loolu dara newu ci fekk na ko ko waxee moo tax waaw waaye soo ko tàgguwul nag su ko neexee bu ñibbisee sañ naa dagg sa koor waaw te benn bàkkaar du ko ci am bu dul kooru bu dul kooru farata laa wax nag kooru naafi la rek la ko sañ jullig naafi la guddi balaan koo def yow jigéen da ngay tàggu sa boroom kër li naafi la di neex neex sàngoog mbàjji sa borom kër a ko gën ca yàlla a la ko wax yàlla da ah sëy dafa bari doole sëy ak bari doole naafila yeggu fa woor yeggu fa dara yeggu fa moo tax suuratul mujaadala waa ji dafa tëdd di xaar soxna si soxna si di naafila rek sëlmal ñaari rakka sëlmal ñaari rakka sëlmal ñaari rakka waa ji xeddar ne na def na lu ne saxaaba bi xeddar ne na def na lu ne soxna si aju aras rek te wàcc mu ne ko yow mi la laa wax daggal sa naafila ji te ñëw dama laa soxla soxna si faalewu ko sax xol ba tàng nag mu ne ko def naa la ni sama ndey ji ma jur xam nga dafa am góor ñu gaaw a tàng nag te ñaaw làmmiñ ndaw si pare naa fi lam tëdd mu bëgg koo teg loxo soxna si ne ko déedéet baat bi ñu ma wax fokk bër set ñu laaj ko ki yàlla yónni lu ci sharia wax xaw ma lu ci charia wax xam naa ne baat bu garaaw la waa ji fanaa ne koo rëbb ko waaye ndaw si tontuwut na qad sami allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau taxaawurakuma yàlla garaaw non alquran dara melul ni moom dara melul yàlla na yonent bi xat ca dëgg dëgg dëgg dëgg sami a dégg na allahu buur yàlla xawlal lati waxu ndaw sa nga xam ne tujaadilu ko mu ngi dàggee santeeg yow fii zawjiha ci mbiru jëkkër wa tashtaki ilallahi mu ngi koy jooy yàlla lu ci yàlla wax wallahu yasmau taxaawarakuma yàlla ne dégg naa seen joxalante ya dégg naa baat yu ñaaw ya génn dégg naa wax ju ñaaw ja génn waaye yow yonent bi dégager sa responsabilité de ndaw si am na dëgg waaje ndaw si xaraam na ko yonent bi ne ko kaay mu ñëw mu ne ko wéyal mu ne ko wéyuma kii dama koo bëgg ba dof nga naan ma ma wéy fu may wéy kon mooy sama toroxtaange mu ne ko baat bi nga génnee ñàkk nga sa jabar yaa ko ne def na def nga ko ni sa ndey jure mu jonkan fa di jooy ne yonent bi dew ma yonent bi ne ko ñaaw làmmiñ jar lii dew ma euh, mu ne ko kon loo ko doon waxee mu ne ko erreur erreur damaa juum waxal ak yàlla mi la yónni ne ko dama juum mu régler problème bi loolu la yàlla wax nag ne wallahu yasma'u tahawurakum aaya beneen aaya ñëw atte yàlla ne ko wax ko ne ko mu woor ñaari weer yu toppante te du dagg benn bés yonent bi wax ko ko mu ne ko kon àddina tukki man weeru koor wii sax balaa ma ko woor lu leen danaa ko daj ñaari weer yu toppante mënuma ko xool ma man sama yaram dafa àttan loolu mun waxal yàlla mënuma ko <laughs> ah! bu ko defee toon ñàkk jabar de yonent bi ne ko sa borom nee na kon léegi layalal juróom benn fukki miskin kenn ku ne nga jox ko lu mat añ mu ne ko man damaa am añu ëllëg bay añal kenn xoolal li ngay wax man aw ma añu ëllëg bay añal kenn <laughs> loolu ci bët njaboot la te fokk yàlla regle problème boobu ndax bu ñëwee ëllëg encore bu ko régler wutoon tey bu amee te tey bari na ku koy wax jigéen ndax ñaaw làmmiñ bari na mais nii la war a doxee bu amee mujj mu ne ko fuñ dee teere eh, imam fu wa alladina yadaharuna min minkum min nisaihim maa un maa hunna ummahatukum in ummahatuhum illa allaati waladnahum continue wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zuuran ah jox ma loxo kooku du Chérif dara yàlla du Chérif yàlla du nit bu doon nit ndaw sa deen waaj a deen yàlla na yonent bi delluwaatal alladina yazharuna min nisaihim ñi nga xam ne ñi nga xam ne wax ju bon rek lañ wax di ko wax seeni jabar naan ko def naa la si sa ni sa ndey ni sama ndey mu ne dañoo bon rek waaye xam nañ ne du seen ndey wax nañ wax ju jéggi dayoon nag wax nañ waxu caaxaan wax nañ waxu mbóosóor in ummahatuhum na leen wóor ne seen ndey yi yow mi ko wax allaati mooy ka nga xam ne walat na moo leen jur koo koy sa waaye sa jabar du sa ndey lu ca topp in ummahatuhum illa allahi walat hum mu ne wa innahum naka ñoom ñooñu nag lu tax waxul wa innahu te benn waay la woon benn saxaaba la lu tax yàlla waxul innahum mu ne innahum xam na ne dana am ñu reewu ëllëg ba wax ko mu boole waale leen ci programme bi ak ca waale li ñu ñëwagul yàllay karim bu doon innahu rek mu ne innahum na ko ñoom ña koy waxi ëllëg innahu naka moom waaji bu ko waxoon muy waaji kese waaye innahum waa ji ak njaboot ga ci ndiggam waa ji ak ña ko war a waxi ëllëg te royee ko ci moom moo tax yàlla dóor leen pluriel innahum waaw du bàyyi cas particulier ne ku waxati lu mel nii te mel ni kii yaquluna wax nañ rek munkaran wax ju ñu sib min al li cik wax wa zuuran ak waxu caaxaan lu ca topp wa inna ca dëgg dëgg dëgg allahu buur yàlla la afuwun kuy baale la la xafuurun kuy jéggale la yonent bi ne ko baal naa ko jéggal naa ko waaye bu mu amati ah yàlla bu doon nit àddina tukki na mu bu doon nit àddina tukki na bu yàgg ndax yi ñuy def mu ne patt rek kon nag ñu bañ a taxaw foofu lu yàgg moo tax saar woowu muy suratul mujaadala yonent bi waxoon ne nañ ko jàngal jigéen ñi moom it ndax ñu xam atte yi parce que jigéen mooy diriger mooy diriger kër mooy diriger pénc bu pénc baaxee rek jigéen la ñooy jur allaati waladnahum kañ kon suratu bii ci la bokk kon mbokk yi Madické mu ngi fi kañ kon ñu tàmbali saaru yi ci bismillahi rahmaani rahim suuratun aw saar la suura mooy aw saar boo xam ne borom bi mu ngi ko tuddee nuur muy leer sababu nuzul bi nag wax nañ ne la tax yàlla tuddee ko nuur muy lim wax ci biir ne allahu nuuru samawati wal ard te imam Bousso jàng ko léegi saar yi mu ngi wàcc medinatul munawwara juróom benn fukki aaya la ak ñaar wala juróom benn fukki aaya ak ñeent yépp wér na ku yore téere boo xam ne warsh la ak téere boo xam ne xafs la loolay différence yi taxawaayu aaye yi dañ koy ute nuñ ko marqué waaye du alquran a wutee de déedéet riwaayatu warsh fi muy taxaw ak riwaayatu xafs fi muy taxaw du benn waaye yëpp benn la moo tax léelée nga gis saar wi ñu ne la ñaar fukki aaya la ak nangam walla ñeen fukki aaya la ak nangam wala léeg-léeg ñu dëppoo ci yëpp yam comme bas comme fatiha rek bu dee ci warsh bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahimi maliki yowmi diin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain istaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala dalin bu dee wax bu dee xafs bismillahi rahmaani rahim aaya la alhamdulillahi rabbil alamin aaya la arrahmaani rahim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 waaye du uteeg alquran te bu ci nekk li ma leen wax rasulullahi la yàlla di wax ne lii mooy taxawukaay bi lii mooy aaye bi fii la saar wi bokk dugal ko fii roof ko fële léeg-léeg aaye wàcc ba noppi mu ne saxaaba yi bii ca bële la bokk ba ñëwoon daaw ci la bokk dugal leen ko fa te fekk saar wa wàccoon na daaw waaye jeexaguloon yàlla ne ko fa ñukk gi indi beneen saar aaye ñëwaat mu yonent yi moo tax yonent bi ku sonnoon la loolu rek dispersé ko ak nosin wi rek programme la te ci ñaar fukki at ñett la ko programmé moom suñu borom vingt trois ans kenn du moom noonu yàbbul li aadama noonu Abdou Bammi Bammi 42 Moussa lu mu am li aadama nuunun nuunun cinquante fois te xoolal li ko yàlla tudd ci alxuraan yonent ci yàlla Moussa yonent bi nee na tuuti ko noon alxuraan yëpp di Moussa Moussa néew na saar wooyu ubbi te yonent ci yàlla Moussa figuré ci te ñaata yoon juróom fukki yoon la Jibril ñëw ci moom yoon ci yàlla Ibrahima 42 fois am na ci ñoo xam ne ñeent daalul ñeenti yoon la Jibril ñëw ci ñoom yoon ci yàlla Isa li muy bari bari doole 10 10 fois la Jibril ñëw ci moom koo koy ponkal mi xam am na ci yónnent yoo xam ne mosuñu gis jibril ñoom mosuñ ko gis yónnent yi am na ci yónnent yu bari yoo xam ne yàllaay wax ñuy dégg rek wala yàlla gëntuloo leen wax leen ne maa leen ko wax yebal leen ci benn dëkk comme yónnent yàlla yunus ila miati alfin aw miati alf mooy trois cent mille personnes la ko yàlla yónni woon aw yazidun mooy 900 trois trois trois cent mille neuf cent personnes la ko yàlla yónni woon ah vingt quatre mille fois déedéet kaddu alfan waaw vingt quatre mille fois dama juum vingt quatre mille fois waaw kaddu alfan kat du alfan vingt quatre mille fois parce que yonent yëpp ñooy cent vingt quatre mille vingt quatre mille fois bi kon mu ngi tolloog li yonent bi di noyyi la ko yàlla yónni la jibril ñëw ci moom vingt quatre mois vingt quatre mille fois la nit di noyyi par jour douze mille lay aspirer douze mille lay dégager ah waaw vingt quatre mille fois la nit di noyyi par jour douze mille lay aspiré douze mille lay dégagé ñëpp a ci bokk yem nag borom paxi bakkan yu yaa yeeg borom paxi bakkan yu ndaw yeeg ñi am benn paxi bakkan ñiy fattak ñëpp a ci bokk yem alaaji bu saaxo moo ko daan wax moo daan wax ne boo ko weddee bracelet bi montre bi nga takk ak bi ñëj ki ci jàkka ji ah ak bi ci oto bi ak ba ca big benn ak mu ne ak bi ci sa poosu dënn boo ubbee xool mu ne tableau yi bokkuñ waaye même heure lañuy joxe noonu la baxi bakkan yi mel liir bi door a judd mook bàyyam mi ko jur ñooyam vingt quatre mille fois la ñuy noyyi par jour vingt quatre fois la ñuy jour kon vingt quatre mille noyyi li la jibril ñëw ci moom yoon ci mosul féex mësul féex te dina feeñ léegi moo tax saar wi sayyidatuna Aïcha moo moom li ci ëpp wax na moom sayyidatuna Aïcha ci xam-xamam bu rëy bi mu ne bu kooko fi laajoon dem mu ne lu tax taar wi saar wi tàmbalee suuratu suuratun anzalnaaha mu ne loolu lañ war a njëkk a xool Sayyidatuna Aïcha seetal la kuy xalaat loolu mu ne lu tax rek saar wi yàlla tàmbalee ko suuratun kooko posé rek tey mu gag foofu la tàmbale ah mu tax yàlla jàng tàmbalee ko suuratu kañ hmm. Sayyidatuna Aïcha moo bari xam-xam mu ne saar wii li tax mu tàmbalee sóoratun mu ne xabar la mubta mubtada la mu ne xabar jàng ca kanam mooy fara anzalnaaha wa faratnaaha mu ne mubtada la xabar jaa nga ca kanam mu ne bokk na ci li tax yàlla ko tàmbalee ko suuratun muy tekki aw saar mufradal ko maanaam def ko benn te muy benn kot Aïcha mu ne li ci biir nag looloo tax yàlla bëgg ñu xamal ko jigéen ñi mu ne moo tax mu ne suuratul Seydina Omar radiyallahu taala bi saar yi di wàcc moom fekk ko Medina daf ko fekk mu dem Kuufa waaye moom it ponkal de fa rek dal di yàlla wàccee na saar woo xam ne defar na àddina moom Seydina Omar radiyallahu Kuufa la ko fekk mu ne so Seydatuna nee na géñ naa ci yàlla mi ma bind nga tëj jigéen ci néeg jàngal ko baqara ba naasi mu mokkal ko mu ne mu jàng sóoratu nuur mokkal koo ko gën ca yàlla waaw <laughs> ah, naa Aïcha nga jël jigéen tëj ko ci biir néeg fexe ba mokkal baqara ba naasi mu mokkal suratu nuur jëfe ko moo ko gën ca yàlla te daf ko géñ te sayyidatuna Aïcha bi saar bii di wàcc xam nga ñaata at moom laa doon wax ak ustaas dama ko posé question fii nekku ku ci xam na ma dimbale nekkate oustaz Alioune Sall mu seetaan na ko mu daw gëstu ji démb mu wax ma ko loolu laa bëgg nit ñi di gëstu di indi ñu boole oustaz Alioune Sall bokkal ak bu Sud FM nag boobu it sama xarit la man dama bari Alioune Sall am na oustaz Alioune Sall sama mos mooy bi fii xadara bi may wax nii te tuddee ma doom am na oustaz Alioune Sall Sud FM sama xarita ma ne ko mu xaar ci kanam tuuti rek comme ñoom ñu ngi ci bëccëg waaw kañ ñoom ñu ngi ci bëccëg ne ko buñ paree rek nga woo ko na téye téléphone waaw yàlla def am naa oustaz Alioune Sall Sud FM am naa oustaz Alioune Sall bii fi nekk am na Alioune Sall monsieur le maire am na Alioune Sall militaire bàyyam it Alioune Sall la tudd xam naa juróom-ñaari Alioune Sall yoo xam ne ñëpp xam naa leen moo tax mu ci nekk dama ko disperser ci sama portable pour mën a xam tur yi su ko defee kon mu ngi koy sant nag di ko gërëm oustaz Alioune Sall tabaarakallahu saar wii bi muy wàcc sayyidatuna Aïcha fukket ak ñett la am 4 plus 9 jeex na kon boobu mu ngi fekk Seydatuna Aïcha am fukki at ak ñeent 13 ans fukk ak ñett waaw 13 ans xoolal xale bu jigéen bu am 13 ans di wax ak yàlla jigéen ñi yéen may dégg kon mag mu am 60 ans nag ku war a waxal nganta amul. ngant amul sayyidatuna Aïcha à l'âge de treize ans la am di wax ak yàlla ci la yeggit ci garaatu garaatu siddiqiya sës rëkk ci nubuwa baal ma abdallah sës rëkk ci nubuwa nga xam ne bu yàlla doon yónni ab yónent gannaaw yónent bi te amul bu yàlla doon yónni ab yónent moom muy góor ci ñuy njëkk yàlla di njëkk a tànn pour yónni leen ci lay bokk ndax sës na ci ñooñu bu yàlla di yónni dootul vérifier day sëq rek ne yónni naa la barab sàngam ndax mel na niñ bëgg ba pare segg na leen waaw la foofa la ay Aïcha bokk ci group boobu te mu ca bokk à l'âge de treize ans à l'âge de treize ans ca la ca bokk moo tax nga toog fii naan xale xale laa xale laa xale laa bekkañ xale la yàlla bëgg xale yi dem ci yàlla mag day noppalu moo tax Serigne Cheikh Tidiane si ne ku toog ba nekk mag door di xëccoo cër mu ne la la raw bari na ca ba ngay gone la woon te mënatoo koo dabu waaw ah, kañ mu ne Imaam Lamine Diop mu ngi koy wax tey Serigne Cheikh Tidiane si nee na ku toog ba nekk mag door di xëccoob cër mu ne la la raw bari na ba ngay gone la woon te mënatoo ko dabu yàlla gone lay waxal waaye du wax ak mag yàlla day yónni mag mag lay yónni waaye gone lay waxal ndax gone mooy takk moo dul fàtte mag moo mën a dox yónnanti te fa mu koy doxee duñ mer dégg nañ wax bi dégg nañ li ma xelum nga ne ordinateur la loo ci def mu yóbbu ko moo tax yàlla gone lay waxal waaye bu yónni nag mag lay yónni ndax mag am sagesse mag moo am sagesse mën a fekk ay gone wax ak ñoom mën a fekk mag ni ñoom it convaincre ko te duñ ko xeeb ndax dañuy xam ne mag la mag la <laughs> ah? ah mooy luqumaan ah, moo tax yàlla gone lay waxal xoolal luqumaan wa iz qaala luqmaanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu yaa bunayya waaw firi nañ ko fi benn jeex hmm? waaw ak kaja moo indi masjidu Aïcha ba léegi kuy umra fu nga armalee fa sax moo gën a yomb loolu tax ñu tuddee ko ko fala daan armale waaw buy bu daan dem omra ak yooyu le fa la daan armale moo tax ñu tuddee ko jàkk moo tax kuy li ci ëpp ñiy omra yëpp man de fa laa armale woon waaw kañ kon ci fukket ñett ci la saar wi wàcc ànd ak moom te dina ñëw ca kanam yonent bi daan na ci dema dema dem ba buñ ko nuyoo mu ne ana seen kooka du tudd sax Aïcha ndax seytaane bu dox ci diggante bi rek ana seen kooka ana seen kooka ana seen ndaw soosa ñu ne ko mu nga fa waaye moom it mu ngi koy bàyyi xel de li coow li di bari bari saar wu doy waar la saar wi suratu Nuur atqaana saar wi ñëpp a ko war a xam moo tax saydatuna aïcha radiallahu taala anha wax na ne saar wi maa ngi ñaan jigéen ñépp nañ ko xam te xamal ko seen doom yu jigéen yi mu ne waaye bu yem ci xamal leen ko nañ leen ko firil bañ xam maanaa bi ci biir mu ne dana tax ñu am cër ca yàlla Seydina Omar radiyallahu taala anhu moom mi nga xam ne dox na ci lu bari ci xissa bii nga xam ne moo tuumaal Seydatuna Aïcha lijjanti na ci lu bari réglé na ci lu bari Seydina Omar wax na ci gémmiñam ne man Omar de maa ngi leen di ñaan mbooleem jigéeni ñi jullit ñi na ngeen fexe ba xam saar wi kon bismillahi rahmaani rahim dina ñëw bismillahi ñu ngi sos suñu wax suñuy jëf suñu yëngatu ak suñu dal yépp ci turi buur bi ñuy wax allah loolu la bismillahi di firi moo tax bismillahi mujreeha wa murseeha inna la inna rabbi jeex na bismillahi ñu ngi sos suñuy wax suñuy jëf suñu yëngatu suñu dal ak suñu lépp ci turi buur bi ñuy wax allah ñu ne ko yàlla xamuñ loolu dafa diis mu ne arrahmaani mooy ki ëmbal yërmande ñépp lépp lum bind mu ne arrahimi ki xar yërmandeem ji nag jagleel ko ñi ko topp ëllëg bés penc mooy ñi nangoo topp yàlla ca maam aadama ba ci sallallahu alayhi wa sallam ba bëf tëddiwal ku mu ku topp yàlla topp yonent bi rek jullit nga kooku nag la yàlla wax ne bés penc moom laa réserver sama yërmande yonent bi nag nee na yërmande yàlla bu doon cent mu ne quatre-vingt-dix-neuf yëpp da ko denc pour ëllëg benn rek la wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yërmande yàlla su fekkoon ne cent pour cent la mu ne quatre-vingt-dix-neuf yëpp yàlla def ko denc pour ëllëg benn rek la wàccee ci àddina bi ila yawmil qiyaamati benn boobu mooy fonctionner moo tax mu ne wa rahmati wasiat kulla shay'in ilman waaw yërmande yàlla fi moo tax niñ bàyyi réew mi day tàkk bu tàkkee neel day day sedd balaa nga naan day tàkk neel day sedd ah yàlla ni yaatoo ngay ut xa jarul moo tax saydatuna Aïcha nag ne saar wii nañ xool lu tax yàlla ne suuratun tëb rek ne suuratun aw saar la danañ ci ñëw ci kanam mu ne aw saar la woo xam ne anzalnaaha wàcce nañ ko wa faradnaaha ñu farataal ay atteem ci jaamam yi farat naa ji loolu lay firi wàccee nañ saar wi waaye dafa ànd ak atte mu ne atte yooyu ci biir nag te man yàlla ñooguma ci atte yi mu ne atte yooyu nag farataal naa ko ci jaam ñépp wa naa mu ne ñu wàccee fiiha ci biir téere bi ayatin ay aaya yoo xam ne bayyinaatin yu leer nàññ la yu amul benn lëndëm laal lakum ndax yéen jullit ñi te zakkaru na ngeen mën a am xel fàttaliku ne yàllaa leen wàcce moo wàccee ay atteem moo leen fi wàccee waaye moo wàccee ay atteem lënkale ko ak yéen pour seen dund mën a neex xam nga lu tax atteem baax dund mën a régler bu atte amuloon lu neex waaye def bu atte amuloon dina tukki sax loi mooy tax ñépp jaar yoon loi mooy atte bu loi amuloon lu neex waaye def kon fiis ñuy toog sax di nga gis fu mu naqare rek nga ñëw rek pour mar deytaal yi wala tas leen ko waaye comme xam nañ ne loi am na boo ko defee loi dal ci sa kaw nga taxaw moo tax yàlla nag ne am nay atte waaye am nay loi ci biir loi yooyu nag faratal naa ko faratal naa ko man yàlla ci jaam ñépp ndax ngeen mën a am xel xam li ngeen di def xam nga lu tax mu commencé rek adaniyatu tuumaal bi ñu tuumaal sayyidatuna Aïcha moo tax yàlla commencé ko ci njaalo. Hmm? waaw dafa mer yàlla dafa mer dañ déedéet nga dégg ko naan yàlla du mer yàlla day mer waaye meram ak suñ mer du benn merum yàlla kañ moo tax nga gis mu mer massacré dëkk ña bokk ak ña bokkuloon ñëpp yàlla jaal naa aliyaha saafilaha wa amtal na alayhim mataran mina mina samaa'i ba yàlla di këpp wëlbati suuf ci seen kaw am na ñu defuloon dara ba ba jibril ñëwee ba tiim dëkk ba yàlla ne ko wëlbatil ma suuf ci seen kaw dafa ñëw ba tiim dëkk bi gis ne juróom-ñaar fukki junni nit a ngi fi di jaamu yàlla ni ko yàlla bëggee comme yonent yi ñemewute këpp dëkk bi moo ñëwee ko dem yàlla ne yàlla dëkk bi ma yebal pour ma alak leen fekk naa fa soixante-dix mille personnes yoo xam ne ñu ngay jaamu yàlla ni ko yonent yi doon defee ñoo ñu ñooñu ñemewuma këpp dëpp gi yàlla ne ko demal def li ma def li ma la sant wala ma far sa tur ah jibril xam nga ku ko sant moom te ne ko defal yonent bi nee na mbagg benn mbaggu ndey jooto càmmoñam la roof mu àkk ci suufi juróom-ñaar mu deqati ko naaw ak ñoom ba bu ñuy yuuxu waa asamaan di ko dégg mu këpp wa na aaliyaha saafilaha yemu ca wa amtarna alayhim ay taw safara yu jógee safara yàlla di ko taw ci seen kaw boole ci ba yëf ya sedde nag jibril ne ko yàlla nag kaay ma laaj la sama borom mu ne ko mu ne ñii bari nañ bari koo xam ne nga alag leen mu ne ko waaw seen jaamu yàlla gi ci ñoom lañ ko yemale mbon gi amoon ci dëkk bi naqariwu leen waaw mu ne ko mbon gi am ci dëkk bi naqarewu leen mosuñ caa wax ñu ngi may jaamu ni ma ko bëggee waaye danaa leen booleeg ñoom alak suñ ñëwee ma teqale inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim waaw maa bi qawmin la wax ñu nga ca biir mbooloo ma dañ waroon a wax te waxuñu ca la yonent bi waxee ci hadis bii may wax nag ci la yonent bi waxee ne sallallahu alayhi wa sallam ne aalimun shaakitun anil xaqi seytaanun axaras nee na borom xam-xam bu gis ndëngate ak may gum war wax te waxu ko mu ne mook seytaane bu muuma ñoo yem aalimun shaakitun anil xaqi seytaanun axaras loolu la yonent bi wax te mu ko wax keroog bi muy wax ñii yàlla bugal te ñuy soixante-dix mille soixante-dix mille sabiina alfan ñoo xam ne kenn ku ne mu ngi jaamu yàlla ni ko yonent yi daan defe te xam nga lu taxoon ñu àll dëkk ba ngóor jigéen a taxoon ah ngóor jigéen waaw jigéen a taxoon ñun lu yàlla alagee woon xeet yi ñu ngi ci moo tax nga xam ne rasulullah mooy ponkal moom rek la ñu yàlla rusee waaye konoon ñun waxuma la tawu safara waaye xeeru safara ak tawu safara ak béton safara la yàlla di wàcceel ndax lépp ñu ngi ci à nag ñu ngi ci ribaa ji ñu ngi ci ngóor jigéen bi ñu nga ca njaalo ga ñu ca sàcc ga ñu nga ca fen ñu nga ca wuruj ñu nga ca warante ñu nga ca un peu partout bàkkaar boo yàlla mu sa alagee aw xeer rek ñu ñu ngi defandoon yëpp à la yàlla dégg ñu fi ngir rasulullah ndax keroog bi muy dem loolu la njëkk a plaidé ci kanamu yàlla ci ñun bi ko Jibril ñëwee ne sa borom nee na àpp bi jot na 63 ans la dogaloon mat na a fi nekk nag nga tànn ñëw fekk si ko léegi wa illa nga des si dib yonant ba àddina tukki sab yonant dara du ci wàññeeku ñii lay gëm danañ la gëm ku ñëw dana la gëm dara du ci wàññeeku ci sag yonant doo màggat doo dee ba bés peñ xam nga loolu neex na balaa muy daaneel sax yonent bi ne ko ne ko tànn na fekk si ko léegi moom hésité wut xam nga lu tax xam nga lu tax ku fi président Macky Sall waxoon ne ma nommé la ambassadeur feek maa ngi nekk ci pouvoir bi doo wàcc foo jógee tey ma sànni la fa ca des ci beneen réew ngay tourner àddina bi yëpp dinaa fexe ba nommé la ambassadeur ci réew yëpp wala nga bañ a nekk ambassadeur te ñëw fekk si ma ci biir pale bi bu may tukki ñuy ànd te teewul ma jox la soldu ambassadeur booy tànn waaye ne faax ca palais ba ngay tànn waaw lu tax nga bëgg pale bi te bañ dem bàmmeel <laughs> balaa ngay dajeeg yàlla foog nga jaar ci bàmmeel bàmmeel mooy salle d'attente mooy palais ok ah, te deewoo mënul am xanaa Idriss te kooku exception la ci ak Cheikh Umar Fouti yooyu beneen cadre la dinañ ci ñëw waaye ah beneen cadre la Cheikh Umar bokk na ci ñiy dem directement àjjana te duñ dee fii ma toog di wax ak yow Cheikh Umar deewul ci ñun ñaan ci maawul xayaat ci la bokk te ku ma woo ci penc ma lay kook yow ba yeey la billahi ku ma woo ci penc penc laa wax television bu neex waaye na ma ca waay woo ma lay kook yow te yeey la ci diggu àddina wax naa ko ci benn góor ma ne ko nag góor gi mu naa ma ne ko bàkkuwuma soo weddee ma woo seexu Umar mu ñëw wax la ndax dee na wala deewul boobu gën a gaaw boo ko ah, gën a leer ah gën a leer moom bu ñëwee ne la deew ma maa ngi nii loo ci mën jeex